yal nañu yàlla defal sutura insha allahu taala ngeen mbaal ma nag dige bor la waaye cof naa tuuti ci Maodo ndax li ma ci war a wax ak ni ma ko bëgg a waxee bëgguma koo cof dama ko bëgg a benn bennal ci teey benn bennal ko ci teey insha allahu ajjuma bu ñu ñëwee nag li may wax waxoon naa la may wax ci Maodo lu njëkk li may mottali mooy Seydul Xaaj Malik bi muy jàng comportement bi mu amoon pour ñiy jàng mën ko jëriñoo comportement bu doy waar la am duma ci wax dara ku bëgg a dégg yow kuy jàng ñëwal déglu Maodo ba muy jàng ban comportement la amoon ba tax yàlla sédd ko xam-xam bi mu am dinaa waxit it maandoom ci digganteem ak jaami yàlla yi waaye ci digganteem ak yi yàlla bind te duñ sax ay mbindeef orma bi mu leen joxoon ak maandute dinaa waxit digganteem ak i ay magam Abdou Boli Fall moo ko mag di ah moo mag Seydul Haaji Maalik te bi fatxu Maodo bi di ñëw moom Maodo ñoo fi newoon ah bari na koo xam ne boo gënee jekku sama jekkali ko maa la ko wax wala desal ko ginnaaw maa la ko wax moo xew ci réew mi de écrasé ko waaye mosu ko nangu ci Abdou Boli moo ko Seydi Hadj Malick benn ndey Abdou yi faa faawaat di welee ko jur moo topp ci Maodo ma asabla Maodo topp ci moom Fanta ñaŋ mooy taawu maam faawaat di wele yàlla weddi ñu joxaat ko bàyyi Abdou Booli Fall yàlla weddi ñu door ko jox maam Ousmane mu am ci Seydul Hadj Malick Abdou Booli Fall boobu nag ak Seydi Hadj ñoo daan ànd da ci ba ñuy jógee njaar ne ñoo ànd ñëw Tiwaawan lu tax Maodo dem njaar ne loolu yëpp dinaa ko ak lu tax mu jógee njaar ne dem Kër Baara Sall Kër Baara Sall maa daan def conférence ba man mii loolu leer na xanaa Seydi Hadj Malick def na fa juróom-ñaari at Kër Baara Sall man mi may def conférence Kër Baara Sall te ba ma fay dem kenn ñemewu faa dem nañ waxante dëkk piste la yoo xam ne dangay ngay riir suuf la boo amul oto bu baax doo yegg ba léegi sax neexul la dem de Kër Baara Sall <laughs> ba léegi neexul la dem cag naa fa bétaay yi ñu puus ma maag ñi ànd boobu R18 laa yoon ak Sayid Géey bële moom kañ yu bon yëpp maag moo may ànd waaw moom kañ yu garaaw yëpp maag moo ànd Sayid bii ngeen di 22 ans ñu ngi ànd maag moom kër Baara Sall Seydi Hadj Malick def na fa juróom-ñaari at fala fekk maam Alaaji Rawaan Ngom Maodo mag ñim àndal ñépp jàngalu ci kenn alif baa ñëpp dañoo jàng ba xam li ñu xam comme ni ma wax ci alaaji Cerno Saydu Nuuru maam Abdou Hamid Kan sëñ Haadi Touré ak ñëpp dañoo jàng bene ar kullu fannin ñu jàng ko xam lu ne ci lasraar waaye yëg ne yegguñ ci yàlla amuñ embauchement ah te kuy liggéey ku ne embauchement nga bëgg wala déet kuy jàng ku ne ñu employé la nga bëgg ku ñu employé nga embauché ñu embauché la nga bëgg ku bëgg ku am embauchement ku ne yi ngay ut Maodo fexe bañ embauché leen jox leen CDI ku ne mu delloo la fa nga jóge woon ba ci góor gi ma yoro sàll mi jur Serigne Abbas Sall yépp dinaa ko indi insha allahu taala digganteem ak maam maska lu ma xam la Medina Baye maska def naa fa sept ans 77 laa fa dem di fa jàng ci boobu alaaji Ka taalibe Baye Niass moo fa nekk di xalifa tund wa yépp mu not leen ku yëngu mu fudd sa ndigg alaaji Aliou kenn yebu ko maa doon xaritam maa ko daan attaaya imaam Cerno Ka doomam ñëw na fii ci sama gàmmo gi ma wax ko ngeen dégg wala déet bu Banjul taalibe Baye la dëgg du dëgg maa daan àttaayal baayam alaajaliw boobu moom mu nga ca Saoudia di jàng 77 boobu mu nga Arabie Saoudite di jàng moom imaam Cerno boobu mbayka rakkam mu nga Libi di jàng haadi ak oustaz Cerno ñoo nekkoon Arabie Saoudite di jàng maa ngi fàttaliku keroog bi mu amee doom tuddee ko Xadafi mel ni dëj am ci kër gi Alaaji Aliou ku tàng la woon ni ko Cerno lu tax nga tuddee ko Xadafi mu ne ko révolutionnaire la mu ne ko la révolutionnaire mu ne ko ni muy doxalee ci diine moo ma neex doomam bu góor taawam bu góor Xadafi la ko tuddee léegi mu nga États-Unis mu nga Washington ci sama kanam la Xadafi juddi sama yumpaañ daado Siise moo ko jur ca Banjul maa daan attaayal Alaaji Aliou Ka 1978 77 78 79 ba 80 ba ku koy Samba Sagné bi muy at bi muy coup d'état 81 maa ngi foti foo Haddington Street ca Banjul ca kër Alaaji Aliw Ka quatre vingt ku koy Samba Sagné ñun ñëpp ca ron leel ya lañ doon dugg ndax bal yi ratatatatat mennum Alaaji Abib Si bu Cheikhul Xaaji Malik moo lal basangam ci digg ëttam yee doomaraam benn bal du fi reyal man li may wax ma xam ko sama papa kër kër la ne woon boobu moom fa la làqatu ji woon sama baay bi ma jur kër Alaaji la làqatu ji woon ñun ca ron la lu Alaaji Kaba lañ doon fanaan waaye bu ñu kenn rey man li may wax dama ko xam de fekkee waaw ah, ku ma ku ma ku ma ku ma mën a génnee ci li may wax ku weddi li may wax demal nga laaj oustaz Thierno Ka tey mooy imaam ratib bu Banjul otoom bañ nañ ko ba dañ ko ci bindal imaam ratib ñaari oto lañ ko jox yépp imaam ratib lañ ci bind taalibe cheikh al islam la alaaji ibrahim Niass Baye baayam alaaji Aliou kat taalibe alaaji alaaji ibrahim Niass Baye la lim fi mu jaar ak Baye Niass ba nekk taalibeem alaaji Aliou nettali na ma ko te magam yi ci des yëpp duñ taalibe Baye waaye tey moo ci gën a tekki moo ci gën a avancé mook imaam Thierno xasuma kenn nag waaye ñoo yëkkati raaya ba moom ak Cerno Yaxya yi yëpp seen diggante Cheikh al Islam alaaji Baay alaaji Ibrahima Niass nettali nañ ma waa diwaan bi ne nañ na nga eh, nuñ koy waxeeti mbuur ñaari at yàlla bu fi teg sa tànk sanctionné nañ la demal nga seetali ñu Cerno Mamat Saidu Ba fu mu mën a nekk nga defal ko nangam ak nangam ca Medina Gunaas danaa la wax ba wax la jawahirul maani fa mu fa doon jàngale ba góor toll fa alaaji ahmad baro bu mbuur digganteem ak seydil haaji malik mooy sëriñu seydi haaji malik mooy sëriñu alaaji ahmad baro alaaji ahmad baro mooy sëriñu cerno mamad saidu ba bu Medina Gunaas danaa la wax sabab ba cheikh alxaaji omar al fuuti yu la ah, bu àjjuma bii di ñëw sabab yooyu yëpp dinaa la ko tegal benn par benn incha allah te virgule kenn du ko ci dindi duma ci xas kenn te lépp honneur la nag honneur la ci Cerno Ahmad Baro honneur la ci Cerno ba euh, Mamad Saydu Ba honneur la ci Seydul Xaaji Maalik waaye benn du ci xas honneur la ci tarixa bi parce que kenn mënta demal sa bopp suuf bu sutaatee dañ ko jàll nit ñi nañ xam loolu alaaji malik dafa am ku ko defar xëyul rek na lay ndi cëpp Cheikh al am na fu jaar xëyul rek ne lay ne cëpp maam Ablaye Niass kazalika hatta cheikhuna Tijaani radiyallahu taala an am na fu mu jaar waaw cheikhuna Tijaani muy suñ sëriñ am fu mu jaar yow nga ne sa sëriñ du am fu mu jaar yaa ngi ñuy bëgg a nax taalibe nag dana gën sëriñam waaye la cheikh moom dal Ghali waxoon ba mu ko laajee cheikhuna Tijaani daf ko ne ah taalibe dina dem bay tëbb sëriñam ci leeru mbubb yi. ci leeru kaasu ndox yi ci leeru lépp yàlla waaye ker bu wonee sëriñam boobu ne ko ci sama leeri mbubb yi ngay sol ci sama kaasu leer yi ngay naan mu ne danañu dajee ca diiwaanu lawliyaa yi rocc ko ci lépp yàlla ba mu set sànni ko ndax ñàkk orma mu ne ko ni muy def mu ne ko loo mën a defal sa sëriñ sëggal ci suuf mu yéeg ci sa kaw ndax bu du toon moom doo ko am raam rekk di joxe àddiya ndax bu du loon moom doo ko am yëf yi yombut foo fekk kuy xuggas des na foo fekk kuy xuggas ndiku da koy mottali ko waaye des na ku yegg ci yàlla piir dangay wàcc cheikh baa ngi nii maa ngi ràcci ràcci rek gis nga ko mu ngi ne déjj tabarakal la lii lañ soxla ci kilifa lii lañ soxla ci kilifa lii nag yal na sax Sénégal lii yal na yàq lii yal na bari dem njob ba kontaan nañ fu kontaan te yem yàlla seede na te ko te wakafa billahi shahidan ana Aliou Gaye waaleykum salaam yaay njaay moom mii di dem moo doon soxna Baye Alaaji Tijaan ñang ca Ndar fa tabaarakallah moom mii mën naa wax ci moom lu bari wallahi bi ma koy fekk ndar ca bàyyi lañ ci jaan moom xam na li may wax ne mu ngi nii ah booba kilifa la de kii mu may maam ngóor topp nii aji safi bii di séeg maam ngóor di ñaar ñaareelam boobu lay door a judd soxna sii moo ma daan defal njarum soow bu jógee jumaa maag bàyyi alaaj Tijaan ñang ca pikop ba la safu la moo daan dawalal boppam boobu ñu dem julli ji juma mooy jiite kat moom bàyyi la ci jar ña buñ jiitee ba pare mu dawal lendre bi ñëwaat bu ñëwee soxna si mooy defar njaru soow mi ñu bokk añ mu de jox ñu njaru soow ñu naan mu defar attaaya ba julli tàkkusaan mu yëkkati vingt cinq mille francs jox ma ne ma demal ba ëllëg nga ñëwaat lasaraar bu ne mu jàngal ma ko moo ma njëkk won woon waliyu xadir ak bët bàyyi laa ci jan ñan xadir moo ma ko njëkk a won yaqazatan laa manaama kayit yam doon bind ba won ma ko maa ngi kayit yi mu ngi ci suuf keroog la ma won montre nu muy doxee ci péeyu yàlla bi ñama ma ci xakim lay dox turu yàlla bi ñuy wax xakim moo tax wa man yu'til xikmata faqad utiya xayran kathiran keroog la ma génneel aaya boobu ne ma bindal xakim ma bind nii mu ne ma xaala kaaf miim ak yaa mu ne ma des déchiffré ko ma ne ko xaa huit la kaaf vingt la yaa dix la miim quarante la lépp ñaata la soixante-dix-huit soixante porte Masalikul Jinaan mooy xakim Masalikul Jinaan xakim minal xikmati maa la ko may ma mu ne ma léegi defal montar mooma laa ci jande ma bind benn wërngal mu ne ma defal douze ca kaw ma def douze un deux trois quatre cinq six sept huit neuf dix onze mu ne ma baax na mu ne ma du lii mooy montre ma ne ko waaw mu ne ma neel coppet douze bi tegal ma ko fii doom ma bind douze mu ne ma waaw léegi onze plus un ma ne ko douze mu ne ma bindal mu ne ma dix plus deux da ngay jël côté bi ak côté bi di ko plus léegi xam nga boo jëlee douze bi ne ko copp fële luy des onze mu ne ma 11 plus 1 doom ma ne ko 12 mu ne ma bindal 12 bàyyi laa ci jan de mu ne ma 9 plus 3 12 8 plus 4 12 7 plus 5 12 mu ne ma indil 6 bi ci suuf ma indi 6 mu ne ma additionnel yëpp ma additionné mu ne ma 78 wa hakada hakim mu ne ma programme yàlla ngoog mu ne ma lépp ci montar bii lay dox mooy ismul xakim wa man yuutil xikmata faqad utiya xayran kathiran mu ne ma moo tax huwa alladi jacala alchamsa diyaan walqamara nuuran wa qaddarahu manazila li taalamu adada sinina walxisaab mu ne ma haada huwa alxisaab wax ma yu gërëw ba mu yàgg mu ne bu ëllëgee nga ñëw ñu ànd ci armée yi caaka njaay ya fanañ dañ ci amal daan soxo mi yal na yàlla dolli yërmande ci moom ñu ànd ba ci armeel yi ci benn taatu garab mu ne ma toogal fii tuuti ku ma ñëw ànd ak moom huwa waliyu qadir <laughs> te ala ala bay ala ci jan ñi boo ko fekkoon ndar mu toog danga naan kii maa la di Italie tuuti ma seen muy ànd moom di ñëw mu ma nuyu ko waaye bu ko jox loxo mu ne ma hada huwa waliyu qadir maa cheikh alxaaji omar kulla yawmin wa kulla xiinin waaw bii ñang te pourtant ñëpp xam nañ ko ci ndar ñu ngi ko denc ci biir këram doomam cheikh ñang fii lay ñëw di xadara yéen ñëpp xam ngeen ko Lamine ñan mooy taawam alaaji Lamine Niang yéen ñëpp xam ngeen ko te kat moo ko ko jox Serigne Babacar Sy moo ma ko wax ci gémmiñam mu ne ma xaw ma woon dara ba ma jàngee ba noppi xutuma laa woon rek di mbiccir mbicciri rek xaw ma fu may jëm xaw ma aw ma min ay na aw ma ilaa ay na nii la ma ko doon waxee xam nga mag ñi dañ simple ba mu ëpp mu ne ma ma toog rek yëf yi tar rek metti rek métti rek ma ne man ko ñàkk fayda la mbay yaa ñu doy ji mu ngi ubale ci réew mi ñépp a ngi naan mbay yaa ñu doy mbay yaa ñu doy Seydi Aboubacar Bakar ak Daraman yaa ñu doy doo seen morom man ma toog fii rek mu ne ma du góotali jubali ndar jubali Tiwaawan nee na mënoon naa koo xaar ba ñëw ndar mu ne ma jubali Tiwaawan fekk ko fa nee na rang ba yegg si fekk boq naa sama xasida bu leen ko wéy nee na yegg si rek mu ne ma lan la ñang ma ne ko ñaar jamono ma jàpp. ma bëgg a dem màkk it boole ci defoon naa asalëf ci yow na pour nga ñaanal ma yàlla yaa layta nii kuntu eh, naalan lil xalifati aw sariiran yaa layta nii kuntu naalan aw sariiran lil xalifati ba xasida jeex mu ne yellente woon ma nekk dàll wi sëriñ Babacar di sol mu sol ma dox yaay soxlaam bu ñëwee summiwaat ma wala boo ma nekk lal bi nga xam ne bu bu bu yaramam nagamee ca lay wéeru aslëf jógaat ay waay bu ma nekkoon lal boobu dana sant ba xasida bi jeex mu jàng ko nee na ci kanamu sëñ Babacar si firi ko ci wolof mu ne sëñ Babacar si jox ko loxo ne ko ñang lii nga ma wax boo ko waxoon ku amul dara ci yàlla sax mu jéem rawati man mii nga ko wax nag li yàlla am yépp dënk na ma ko ñang li nga bëgg yépp defal naa la ko nee na ma ñibbi ñu fal ma iliman affaire yi di dox nit ñi di ñëw mu ne ma mu teg daf ma ci tegal ne ma benn màkka nga ma wax mu ne mu ma xanaa ay màkka keroog bi ma koy nettali soxna si yë ngi toog mu ne ma xam nga ñaata yoon laa demagu ma ne ko dee mu ne ma ñaar fukk ak ñaar ba faf doomam dëkk fa muy alaaji Lamin ñang bi ne maa ngi ci sama yoon ñaar fukki yoon ak ñaar màkka te benn rek laa waxoon Seyd Aboubacar waaw kooku bu demoon naan ko jox ma turu yàlla li ma njëkkee woon léegi mm-hmm. ah bu ko joxee turu yàlla ba mën na caa bañ a jëriñu waaye xoolal tey li ko sëriñ Babacar si ñaanal doomam yaa ngi ciy bénéficié wu ba ci sëñ Alaaji Lamin ñag nii ci lay ci lay ci lay dox fi ne moom daanaka màkka la dëgg dëkk kon nañ wali yu bokk sëñ Babacar si daan na wax ne ku ma jox sa lépp ma téyel la lépp ku ma jox genn wàll ma téyel la genn wàll lii la sëñ Babacar si daan wax mag ñëpp nii lañ nekkee woon kii xam na li may wax bàyyam sëñ Asan dem billaahi boo mosaan dugg kaw la riir ma ni ko bàyyi ñas wóoloo woon ci kaw suuf lu ci bari xam naa ko ndax ci na yaxyaa ne moo tax ma ne ko am na loo xam ne su ma ko waxoon tey la hawla wala quwwata illa billaahi diggante sëñ Asan dem ak Cheikh al Islam ak ni ko bàyyi woon moo sëñ Alioune Cissé bàyyi imaam Hassan Cissé ak sëriñ Cheikh Tidiane Cissé bii tey confiance yi cheikh al islam amoon ci ñoom ak lim leen dënkoon su altine la fi sayid tayib njëkk a ñëw dem ci sayid aboubacar lii may wax sëriñ abdou alamin moo ma ko nett bu nettali na ma ko ci ay numaadi jaxate bu xaadi ma jaxate kala keroog ousmane jaxate mu ngi toog ousmane jaxate ngi dund dem leen ngeen laaj ko gàmmoo gu ma fa doon def ma ak sëriñ abdou alamin keroog dañoo réer 4 heures du matin laa yegg sëñ Abdou it mu ngi yegg si 4 heures di matin daanaka ndax piste la da ngay réer léegi nag am na tali rang-rang ba yegg ci dëkk ba tabaarkàlla gàmmu gaat bu jot maa koy def mbay doon de mbayee ko doon woy bi génnaat dina duudu kenn dee koy woy léegi nee na bi Seyid Tayib ñëwee Tiwaawan sëñ Babacar dafa fexe ba laajte lu Seyid Tayib gën a bëgg ñu ne ko mbote moo am 6 mois daanaka ci lay ndékki ci lay añ mu ne sëñ Babacar si yónnee Jolof mu ne camion mbote lañ ko indil keroog sëñ Abdou Lamine wallaahi moo ma ko nett radiyallahu anhu wa rahmatullah mu ne camion mbote la sëñ Babacar si indi keroog mu ne kër peer bi kër peer ci Tiwaawan mu ne moom la defar defarluwaat génnee matériel la fa nekk yépp def fa yu bees taq ndax Chérif nee na war ta tëdd ci matériel bu màggat nee na keroog sëñ Babacar si dafa amoon sedd ñemewuloon sedd waaye dafa bàyyi dàll yi ci kër ga karo yi nee na bu tegee tànkam mu sedd nga gis mu koy kolkolal nee na si Abdou nee na ma ne ko si solal sa xuuf yi boog tuuti ndax eh, xam nañ ne sedd ñemewoo sedd mu ne ko ëpp naa def gisuma Seyid Tayib Cheikh Seydi Ahmad yi laa gis mu ne li muy sedd sedd sëñ Babacar ñemewul teg tànk yi ci ci ci karo ci ni muy waxtaan ak shérif yëpp ne na mu ngi kolkolal tànk yi ndax orma bu mu jox Sayid Tayib yal na yàlla dolli sutura yal na ñu yàlla dolli sutura yal na ñu yàlla dolli sutura man lii laa gëm nag gis nga yii mook mën naa koy waxtaanee bi bër set continuer bi bër setaat bi bër setaat te duma sonn yàlla xam na ko mag moo fi tudd nag yàlla sutural nañu te li ma ci wax nag li ma wax du lu ñuy làmbatu ña ko fekkee ñoo ma ko nettali yenn yi maa fekkee fa tabaarakallaahu ahsanul xaaliqi bu àjjuma nag ngeen baal ma rek ci foofu la ñuy jaar nag si daaji Maalik ak mag ñi kenn ku ne lu jëflanteek yow ci yar ak teggin ak ñépp ñi nga xam ne jaar nañ ci loxoom ñañ ca mën a tudd daañu leen tudd wax fi Maodo fekk leen ak fañ fekkoon Maodo ak fi mujj ak Maodo ak lan mooy indi Seydul Xaaji Malick Tiwaawan ndax Njaarne la jógee ñëw Tiwaawan gannaaw ba mu jógee Ndar lan moo ko jëlee Ndar yóbbu ko njaar Njaarne lu ko jigee jëlee njaar ne indi ko Tiwaawan ak lu tax mu tànn tiwaawoon pour toog fa ndax proposé woon nañ ko feneen mu tànn toog Tiwaawan incha allah danaa wax luy sabab bi ak lan la Tiwaawoon représenté ci pays yàlla yi ba tax Maodo nangu faa toog wali yu boo gis fu mu tëdd ci pays yàlla yi la bokk ndax kullu waliyin ala qadabil mursal moo tax ñii boo déggee ñuy wax ñu ne ñoom pays ba rek la ñuy wax du loolu ngeen di wax ah, ah, aarifoona billahi yi ñoom pays bi rek lañuy wax ah, ah pays bi nag pays bi la tudd pays bi pays bi la tudd dafa yaatu moo tax léeg-léeg ko naan eh, dama demoon xadara ba ma ne ko ah boo ko laajoon fa xadara bi amee du la ko wax de ñu bari dañuy foog ne xadara bi kow asamaan lay amee léeg-léeg moo amee Turquie léeg-léeg moo amee eh, Soudan léeg-léeg moo amee feneen ngay wax <laughs> temps en temps lay amee ci kaw waaye lu cëpp fii lay amee boo ci kaw rek événement la catastrophique nag circonstance ñu defee ko ci kaw waaye waa suuf nekk ci suuf nga koy defee ci kaw lu mu fay wut te lii may wax ku ci bëgg a contester dara demal nga yéel kasful xijaab bu Cheikh Sukayri yéelal kasful xijaab bu Cheikh Sukayri dina am lu tuuti lum la ci ñaman wala nga yër Ibris bu Cheikh Abdoul Aziz Dabbaax bu mag ba laa wax de waxuma si Abdoul Aziz Dabbaax bu mag ba nga yër Ibris dina am tuuti lum la ci ñemal te lam lay ñemal ci xadara bi loolu mooy moom lam fekkee te du tiijaan dara jaam ji li muy rëy rëy ba jàmbaar la de Abdoul Aziz Dabbaax est-ce que xam ngeen ko bu mag ba laa wax de borom Ibris li muy doon doon jàmbar tom tollu tolluwul cheikh al fii boo ko doon natt di natt bàyyi mu ngi mel ni ku déparé fii war a dem màkk bàyyi dem ba yegg moom muy dox ak tànk ndax la dara jaam di rëy rëy du tiijaan te bàyyi tiijaan na <laughs> jeex na tiijaan la kenn xamut lan la tiijaan kañ moo dof ndofuk boppam ba xamut boppam waaye billaahi tiijaan yi bu ñu xamoon seen bopp dañ naaw ni malaayika yi billaahi wal kitaabi naaw ni malaaka yi te du nekk malaaka waaye ñàkk xam seen bopp rek doyadal seen bopp ba kenn xamut lu ñuy niru sëñ Abdou nee na am na baat bu ñu fi xewaloon El Hadj Abdou Aziz nee koo nuyu Tiwaawoon ma ne la ah fi di ñàkk solo rek tubarkalla tubarkalla maa ngi fi di ñàkk solo rek mu ne sëñ kër si rek xëy dajaleen leen lu may dégg ci dëkk bi nangeen ko bàyyi jullit bu ñàkkee solo fu mu jëm taalibe tiijaan bu ñàkkee solo kuy am solo bu ma ko fi déggati maa ngi fi di ñàkk solo rek mooy lan wala tahinu xanaa jàngu leen ko wala tahdanu tahzanu wa antumul laalawna in kuntum a ngeen naan maa ngi fi di ñàkk solo rek nee na artu leen ba seen yaramam tàng mu ne keroog la wax dakk ah maa ngi fi di ñàkk solo rek pour la dëgg la am beneen manière boo ko waxee waaye bu ko incarné waxee ko beneen manière waaye bu ko incarné nag wala tahinu wala tahzanu wa antumul na ci charte in kuntum muminina looluy ab jullit waaw ah, nañ gëm ne ay jullit lañ d'abord door a gëm ne ay tiijaan lañ ñu ormal ñépp nag ormal ñëpp mooy tax a yegg de orma mooy tax a yegg bi xormatin xad wasala ci orma la nit di yeggee waaye bu dul orma doo dem fen ñàkkal teggin yaradikul xamadil defal lu la neex waaye la nit ñi di séddoo doo ci séddu de di nga am dépense nag dépense moom yéefar bii saw ci mbedd mi sax am na ko te ëppale la ko Michael Jackson li mu fi yoroon dafay jeex ba léegi mu du jeex ku lay jaay mbooloo mu bari ne ko xaar naa la ci Michael Jackson jeex na ku la fiy jaay xaalis ne ko maa ngi lay xaar ci <laughs> dof bi Trump ku ko ëpp xaalis tey ku ko ëpp daraja te moo gën a saay-saay golo fukki nawet Trump ko gën a saay-saay te tey bu dee alal am na ko ba mu doy moo supérieur ñépp ci monde bi tey ci wàllu darajaay àddina ndax mooy incarné le premier puissance mondiale c'est le président de la république des États-Unis kon moom tey moo féetee ñépp kaw waaye moo gën a saay saay golo fukki nawet ci caacaay yu muy def kon loolu la taalibe di jëriñ moo tax alal taxul ñuy wax taalibe wërsëg wu bari taxul ñuy wax taalibe taxul ñuy wax jullit ñi la ko ëppalee fi ne qul man xarama zinata allahi allati axrajat li ibadihi qul hiya liladina amanu fi lxayaati dunia waaye xaalisatan yowma alqiyaama loolu la jullit di war a incarné fexe bay lu baax li fii kenn du la ci ëppale waaye kenn du la gis ci lu bon fexe ba bu ëllëgee nag bu ñëpp séddoo nga séddu loolu nag am kilifaa koy maye waaye ñàkk kilifa moom du ko maye boo amul kilifa moom ndàdd rek nit dafay am kilifa te Serigne Cheikh Tidiane si nee na ku am kilifa du gàggantikoo ci mbedd waaw nee na ku am kilifa doo gàggantikoo ci mbedd kon euh, ñu maye sëy bi rek balaa ñuy gën a lor